ah tey la tey la tey nag happy birthday sama soxna si Nadia la meilleure des femmes yi moom euh, li mu ko mën a sant yëpp moom yaakaar naa ni xajul xajul téléphone bi waaye daal di ko ñaan rek gudd fan ak wér waaw ñoo ngi nii tey di ko dem di ko fetel waaw incha allah gato yi dem nañ jëli yàpp maa ngi dem yóbbul ko defal bu jën jëla ko gatoom incha allah ñu fete ko jabar ju baax a ngi nii jabar bu yaay faale macha allah vraiment maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax Ah, waaw ah, ah, di ko ñaanal gudd fan ak wér waaw jox ma ñeenti doom yu rafet wax dëgg yàlla ubbi sama wërsëg ak lépp waaw bu teg ñi ma xam vraiment di ko sante te di ko gërëm daal di kontaan ci moom saa su ne waaw jaba jaba ju baax a ngi nii wallaay bu déggal jëkkëram bëgg jëkkëram ay domam, donc mana daal dama naan daal yàlla daf ma daf maa beral loxo waaw maa ngi ci sant di ko gërëm waaw na yàlla bon anniversaire. thank you peace and love. Okay, yeah, yeah, yeah. Wish your mama happy birthday. Happy birthday, mommy. Okay, you Thank you. Happy birthday, mommy. Happy birthday, mommy. Yasmin. Hello, mommy. Okay, happy birthday, Sherry Coco. Thank you. Love you. Love you too. Okay. <laughs>